volet yi balaa maa ñëw ci naas si dalay abadose abadose <laughs> ndekete comprimé yi fas yi di naan yi ñuy jox fas yi moom la xale yi di naan maa ko découvrir léegi tëj sa abadose <laughs> comprimé bi boo ko naanee dalay abadose <laughs> sali nga man jaxasoo bili mbànd bi yuuxu say mbokku jaaxle ñu naan rab yi dañ koo liggéey dañ ko sànni kor abadoos doomi sew yi xale yi di naan di ko jàllale mu yàq seen xol bi di indi problème mu cancer di feebar yu bon yi comprimé yi ñu jox fas yi fas comprimé yi ñu jox fas yi xale yi moom lañu abadose <laughs> naa si yaakaar naa yaakaar naa euh, li ñu wax ne mooy ferñeent yi yi yi comprimé yi def li ci baabel daf wax rek war naa tax ku la daw. Hmm. ku la jug foofu fépp. ut foo jaar tabaya eh, tabaya abadoo tey nga état Sénégal jël na ci ay matukaay yu mat sëkk. dëgg la. bépp xale bu ñu jàpp nga yor comprimé. ci kaso bi ngay dee naan ci kaso bi ngay dee direct parquet ngay. dëgg la naasi. waaw xale naasi. kàddu gu mujj ci thème bi nga xam ne mooy vole bi. waaye balaa boobu joxee sa numéro commercial bi nga xam ne tey moom la la sa partenaire yi di jotee pour nga tourner leen publicité. Omar pour jot naa aussi pour mu tourner la publicité da nga koy woo ci 77. 923 28 28 incha allah boo wootee di nga ma jot 77. 923 28 28 boo wootee di nga ma jot ñu waxtaan ànd ak équipe bu 2STV seet si la. Mhm. fësal li nga xamante ne moom ngay jaay Omar. Mhm. noonu lay demee. Mhm. li li Sali wax nag. dama koy dëggal. maanaam tout excès est nuisible ci lu baax booy jëfandikoo lu baax sax excès bi dafay nuisible maanaam massa ngay jëfandikoo loo xamante ne lu bon la. Mhm. overdose bi sali di mhm. wax. abadose. <laughs> overdose bi sali di wax nii. dañ mhm. ci bàyyi xel bu baax te dafay rayé. overdose day rey parce que day mm-hmm. toll foo xamante ne nii sa yaram. Mm-hmm. àttanatul li nga xam ne jël nga ko. da lay rey. Mm-hmm. ba pare euh, vole bi Omar bëgg naa tamit ñu xam ne que da lay jox ay envie de ay ay ay idées suicidaires. maanaam da ngay am envie xaru am na foo xam ne boo ci tolloo ci vole bi. xaru rek ngay bëgg da ngay bëgg rey sa bopp. donc c'est une chose boo xamante ne nii parents yi nañ ci tenir conscience surveiller xale yi xool leen xoolaat leen bañ a jiiñ lépp rab yi. c'est très important parce que rab yeeg jinne ci réew mi sonn nañ lool ndax lépp moom lañ moom lañ koy jiiñ sonn nañu loolu dañ ci gën a bàyyi xel macha allah sonn nañu lool rab yeeg dëmm yeeg jinne yi seytaane yi sonn nañu lool ndax da ngay nekk ci say caaxaan nekk ci say dorog dorogeewu ba tàggoog sa sago soo paree jiin leen ko waaye mbokk yi lu baax bu doon doy doy na bu yàgg tubarkàlla fii la ñu yemale émission tay bi ndax laay sa réalisateur mag mi may def signe na ma dañu war a dugg journal 19h te li ki des matatul juróom-ñaari simili ba tax na fii la ñu koy yemale ba altine incha allah waaye balaa boobu ma nuyu DG de valeur moo l'unique DG Adama Bey a AB Corporation l'homme des grands événements sama waa nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu événementiel marketing communication digitale fii ci Afrique soo jant moo ci mën fuuf waaye tubaarkàlla moo DG yàlla nga dund yàlla yàlla gudd sa fan te say cër bu baax a baax Babel ma bàyyi la nga tàggatoo gaaw ma jox naa mu tëj ñu doog a delloo antenne waaw Omar damay kontaan rek mhm. ci ñëpp di leen wax ne nii lay demee bu 427 00 18 rafet na trop 78 427 0018 Chic Baye Diarra. sama bopp comme d'habitude Mamita Coiffure madame Soxna. man na nag Mamita moom man na. Mamita Coiffure madame Soxna moo fi mhm. jaar toujours. di nuyu sama mag depuis Kër Massar Pape Yaate. Mhm. moom ak sama jeeg ba ca kër ga mhm. madame Yaate. di leen jaajëfal di leen wax ni maa ngi leen di kontaan ci mm. seetaan bi ngeen may seetaan. Mm, macha allah Babel jërëjëf amoon sa fay yàlla mu pa yàlla feel boppam mm. di bëgg ci yow di bëgg ci toogaay wi ñu waajaat yi takk laxasaay waajalaat yeneen tem ba altine ak jàmm incha Omar ma sœur d'amour ma bàyyi la nga tàggatoo ak soppe Omar Loob sama xarit bi bilaay ndeysaan Omar mais xam nga ne tey ji plateau bi mënuñu fee toog te waxtaaneewu ñu li Waly Seck dëbbee dëkk bi ak àdduna dëbb na ko ba mokk ru mbax ah le chanteur du dafa yëngal da koo dëbb ba mu mokk rumbax ci ñaari single yu bees yoo xam ne américain yi dàq way ci américain yi ñi ci gën a siiw ëpp ci bayre ñooñu la Waly Ballago Seck le roi de la musique africaine defand ak ñoom ay duo yu explosif maa la wax li man loolu mënuñoo mënuñoo toog ci plateau bi te parce que loolu sunu sag la sunu sag la sagu nañ sant nañ macha allah sagu nañ sant nañ ndax mm-hmm. tey ji ku xam Chris Brown xam ne c'est un international américain mm-hmm. il est acteur compositeur. Mhm. kon tey Wally bu demee ba ba jëflante kooku rek. ñun mhm. suñu fierté la. dëgg la di wax tamit nekk ne xale yi njaxlaf. Mhm. xale yi nañu gën a njaxlaf. waaw loolu am na sol nan góorgóorlu gën a njaxlaf gën a góorgóorlu ñu ngi xaar tamit euh, seen yos. li ween ak Jézi non Wally liggéey dëgg liggéey dëgg koy def. ñu koy xaar uh-huh. nan góorgóorlu yàlla ko yàlla may.